Wakana mu nekkoon nañu fi naaj bu mu di ñaanante bi rahim ci mbokk ay ëlbatee defal ma ngi liñ bokk yàlla na ragal leen bokk boobu rek laa wax de bu leen dog mbokk inna laa naka yàlla kaari mus moo day raqiban daal di wëttu alaykum ci yéen xaafis wante mooy aji wëttu li amaalikum ñeen seeni jëf wa mu jaasikum te dana mu fay leen bi ci jëf yooyu lépp lu ngeen def yéen doomu aadama yi yàlla nga koy wëttu te bis dana ñëw mu fay ko rek laa wax de kon fexe koo xam ne ñemewoo sawara daal defal lu baax rek laa wax de képp koo xam ne bu nit ñëpp àndoon fexe rek laa wax de fexeel ba bu la nit ñi yóbbaale nekkal ci lu baax dina yow rek yaa ci nekk moytu lu bon dina kenn moytuwul ko ay di machine mu la mesal moom yàlla mutta si ba ndaay meloo bi daal di ci loolu yàlla mosu dañ di wëttu jëfi jaam yépp te jëf ju nekk rek bi dina ñëw yàlla fay ko laa wax de nit ku baax ko wax na ne ñaaw na rek di la baale nañ ko bakkaar daal ñaaw na rek si sa digganteeg sa borom di la yàlla na la ko rek laa wax de arshadana jubal nañu moom yàlla fi aaya ci bile laaya ila taqwa jëm ci ragal yàlla wa silati rahim ak jokk mbokk laaya ji ni ñu ci sant moo di ragal yàlla ak jokk mbokk loolu la ñu sant nañ ragal yàlla su paree nag ñu jokk mbokk ga rek laa wax de arrahimu mbokk mustaqatu luñ xottee la min arrahmaani ci rahmaan gi firi yërmande kon mbokk daal mooy ñu yërmante mbokk gi yéen ci mbokk yi nag mooy mbokk ak yonent yàlla Muusa ak Haaruna loolu mbokk moo gën mbokkook Yuusuf ak bokkam ya de yonent yàlla Muusaa yàlla def na ko yonent mu fexe ba Haaruna moom it def ko mu di yonent bokkam moom waaw dara ju kawe jooju looloo di mbokk mi gën ci mbokk yi laa wax de leen ba mel noonu borom bi subhaanahu wa moo tànn ñu ko neex ci ay jaamam def leen ñu doomu aadama kon doomu aadama bu nekk war naa fonk moromu doomu de ndax mbokk nañ ci wàllu ñoom ñëpp bokk benn maam mu di aadama nit nit rek la xormaalal ak kum mën a doon gannaaw ga yàlla jël mbokk yi doomu aadama yi jël ñi jegale leen ñu bokk deret bokk xeet bokk dëkk ba bokk benn biir bu ñu juddoo wala bokk benn waajur de mbokk boobu yàlla def nag defut ko lu mooy ngeen yërëmante fexe leen ba yërëmante rek laa wax de waaye bu mel ni Yuusuf ak mbokkam ya ndax ñoom bañ gisee teraanga ak yokkutee ci seen mbokk dañoo fexe rek ba sànni ko ca teen ba yàlla waar xaq yàlla ma ngay wax mbokk naan ko fa man wasalaka ku la jog wasaltu jog naa ko wa man qata'aka ku la dog naak qata'tu ma dog ko rek laa wax de yow mbokk ku la jog ma jog ko ku la dog nag mu dog ko ana lan moo di jog ak yàlla yàlla ya bu la lu baax lépp daf la yomb wërsëg dana la dikkal xam-xam dana la dikkal wilaayat dana la dikkal njub dana la dikkal mbaax dana la dikkal jàmm dana dikkal si sa bopp sa njaboot loolu dugg rek mu sotti man da gaay jokkoo yàlla ngoogu de waaye yàlla bu la dogee koo jëflante am ci naqar loo jublu du dox loo dugg doo ca am ndam wërsëg wan la gannaaw dégg nga ñu baax ñi wan la gannaaw jàmm wan la gannaaw ba sa njaboot sax wan la gannaaw loolu man da gaay dogoog yàlla la de bu lay dog waaye bu la yàlla jokkee lu baax mu dana la jokk soo bëggee nag yàlla jokk la ba lépp yomb del jokk mbokk wa taqwal laay ragal yàlla xëy na zukkira saa yu ko tuddee imtisaalul amri mooy topp ndigal ba ci naamu nax ak bàyyi tere ragal yàlla mooy lan mooy jëfee ndigal yi bàyyi tere yi loolu rek moo di ragal yàlla kon nañ ragal yàlla bu paree wasilatu rahim yi ñu jokk mbokk annaasu yi ñu nag muxtalif wala way wuutee leen fii daalika ci jokk mbokk nan la ñuy jokkoo mbokk nag ku nekk ak na muy jokkee minum am na ci nit ñi xaliyun aji xamal silatu rahim jokk mbokkam bi silati mooy mu jokk bil maali ci alal bu la yàlla may wërsëg bu yaat na ngay jokkee mbokk mooy nga dimbali ci sa alal fexe ba bokk koog ñoom at wax fatu nga jox leen may ala qadri saati ci kam kàttanam na nga maye ci sa kéemtulaay kàttan mu jëm ci say mbokk loolu moo di jokk mbokk ci borom alal bu ma lam yaqdir ko at loolu ani tax ba mu may bi seen ci dara min al maali ci alal alxidmatu mu liggéeyal mbokkam wa ziyaara ak mu ziyaara leen wala mu waasala ak mu jokkook ñoom su dee dërëm joo joxe ba léegi mën ngaa jokk mbokk ni ngay jokkee mbokk daal mooy fexeel sa mbokk bu nekkee ci dara nga dem liggéeyal ko jàppale ko fexeel ba di ko ziyaare di ko nemmeeku fexeel di jokk ak moom xatal muraasala ba ci yónnee ko leetar sax bil kitaabati ci bind wala nga envoyé ko message whatsapp waaw lu mën a doon rek loolu si jokk mbokk la la bokk boo mun joxe alal na ngeen jokkoo kullu hada lii lépp daaxilu aji dugg mbokk ci jokk mbokk la bokk waaye jokkoo ci ay leetar ak i lu mën a doon ci jokk mbokk la bokk bokk na ci jokk mbokk ñu dog la nga jokk leen du joxe rek ak di jokkoo loolu di jokk mbokk bokk na ci jokk mbokk mbokk gi yëpp dagg laa yaa nga fexe di leen jokk loolu ci jokk mbokk la bokk yonent bi sallallahu alayhi dama am ku ko dikkal ne ko man de yàlla dafa maa jëgleel mbokk yoo xam ne dama leen jokk ñi di ma dog may rafetal jëm ci ñoom ñoom ñuy ñaawal jëmee ci man may nooyal ci seen kanam ñoom ñuy dëgëral ci sama kanam yonentu ne ko su fekkee ni nga wax noonu la demee yaa ngi mel ni ku leen sëlëm doom bu tàng ci naqar ak la ñuy dëkk doo dañ mukk yàlla ñu ne dimbale seen kaw de sooy def lu baax daal ñu ne delloo lu bon saa su nekk yaay faray kaw yaay sang bari laa wax ne kon bokk na ci jokk mbokk muñel leen seen jëfi ñaaw tey rafetal yow wara narot na fil hadis ci hadis ba ana insaani ne doomu adama yëpp xaa dana des mi na umri ci dundam salaasata ayaamil ñetti fan fa isa wasala bu jokkee rex moo mbokkam ab xaawa mu desal ko allah yàlla salaatina aman fanweeri fan yàlla dana bind ci lawul mahawar isbaat mooy aliwa ji nga xam ne la ci yàlla bind su ko neexee mu faar ko bindaat leneen yàlla dana ci bind ne nit ki ñetti fan maanaam ñetti fan a ko desee ci dundam mu dem jokk mbokk rek yàlla yokkal ko yeneen fanweeri fan nit dana dem ba nga xam ne ñetti fan moo ko tee waaye mu rafetal jëmee ci mbokkam yàlla guddal fanam waaw yokkal ko fanweeri at fan bu nekk nekk fukki at kon jokk mbokk dafay guddal fan waaye la yàlla bind ci lawul max isbaat ak laa wax de dana des mi umri ci dundam salaasuna aman fan fa yaqtamu mu dagg rahimahu mbokkam fa yasiru mu mujj ila salaasati ayaamin ba fan hadis ba nee na bind ci lawul max isbaat nit koo xam ne jullam fanweeri at moo ci des fanweeri at mu dagg mbokk yàlla wàññi ko ba muy ñetti fan at bu nekk tolloog fan kon dog mbokk dafay gàttal fan ndax dafay tax yàlla dog la te bu la yàlla dogee xewal lépp daf lay dog soo bëggee gudd fan daal del jokk mbokk soo bëggee gàtt fan del dog mbokk rek laa wax soo bëggee wërsëg del jokk mbokk soo bëggee ñàkk wërsëg nag del dagg mbokk yonentu nee na képp koo xam ne bëgg na yàlla yokk wërsëgam guddal fanam nay jokk mbokkam ndax boo ko jokkee yàlla jokk la te bu yàlla jokkee lu baax lépp yomb la fa lihaada li moo tax xatoo raximi dagg mbokk rubama yita sababu amaana mu waral fii xasaril amaari ci gàtt dund yi léegi-léegi dagg mbokk dana nekk sabab ci gàtt fan mbokk moomu yàlla fonk la yalla dafa bokk ci yërmandeem bu bindee doomu aadama daf koy wutal waajur bu góor ak bu jigéen ndax lan daan ñu toppatoo ko daan ñu dimbale ko daan ñu teete ko rek la wax ne jaarale ko ci yoon yu gën wutal ko ay mbokk pour ñu dimbale ko bu nekkee ci jafe-jafe waaw bu nekkee ci xewal ñu ndokkeel ko xandak moom jàppale ko ngir mu gën a dëgër loolu rek moom lay mbokk di jaay mooy mooy mante dimbalante waaye lorante xeexante foo gis sa mbokk teraanga ci moom rek sa xol baa ngay tàng ndax fitna rek nga ko bëggal soo gisee ci moom fitna yaa ngay jooy jooy lu fekk xol baa ngay sedd loolu du mbokk rek laa wax de mbokk daal mooy mbokk firi na boppam baat ba daal firi na boppam mbokk mooy bokk rek bokk naqar bokk bànneex bokk wërsëg bokk bëgg-bëgg loolu rek di mbokk waa daal lii nag muy wàññeeku fan ak fan maa fi àq fi maa fi alwaaxi mox mox bi mooy ci àq la nekk ci aliwaay gi nga xam ne yàlla dana ci faar lu ko neex saxal lu neex yàlla dafa am ñaari aliwa lawul ma lawul lawul max wal isbaat aliwa joo xam ne lu ci yàlla bind bu ko neexee mu faar ko bindal leneen loolu lay wax yàlla dana faar lu ko neex saxal lu ko neex ak aliwa joo xam ne lu ci yàlla bind rek du ko faarati te kitaab de. kooku moom lu fa yàlla bind du ko changé moo tax nag fi umil kitaab yi waaye la nekk ci umil kitaab mooy ndeyu téere ba falaay te bëddalu du soppeeku rek laa wax de lu doomu aadama seetlul ne say jëf yépp yàllaa ko dogal ci yow mënoo koo ñàkk def kon nag jàppal ne dangaa mel ni ab machine rek sa yaram bi daal comme machine bu ñu enregistré ay kàddoo ki jëf kàddu yi cay feeñ fexeel ba bul ko foogare xoo ndax yàllaa ko ci feeñal de xoolal rek sa portable waa ngi lay jàngal dana waaye nag kenn du gërëm portable ba rekk ci enregistré wax ju rafet la ñuy gërëm ndax xam nañ ne moom la waaye nag wax ji ci portable bi la feeñ jëf yu yéem it mën na cee feeñ waaye dañu xam ne portable bi du ci dara yow yonentu nee na ba nga amee ñeenti weer sa biir yaay la yónni malaaka mu bind sa wërsëg li nga war a am foo danga ko am ana loo di mooy yàlla rek laa wax de waaw ngir yàkkam ci wërsëg yonent bi mu ngi naan yéex wërsëg bu mu leen tax a def lu xaraam ndax la nekk ci yàlla kenn du ko am lu mooy ci topp yàlla yàlla rek te wut wut bu rafet de wërsëg yàlla pare na ca ñeenti weer ba nga ko amee ci la yàlla bind sa fan yi nga war a dund ana loo di def lu baaxut ngir bëgg a gudd fan mayewut dara li ngay def lépp mayewut dara yàlla pare na say fan de jaamu ko rek la yàlla sant yàlla bind na say jëf yépp ba ngay am ñeenti weer ci sa biir yaay bind ndax aljana nga jëm wala sawara nga jëm lii nag waxuñ la ko lu may nga féexal sa xol bi dal di noppalu nangu ndogalu yàlla xalaat yu bëri yeeg pexe yu bon yi xéene yi ngeen xéene nit ñi lu ñaaw loolu waaw changé dara daf lay toskare rek yokkal la fitna waaye nangu gi nangu ci fépp fu yàlla feeñal xéwal la ñu nangu daal di gërëm kooku it daf ñuy rafet dafay rek waaye soppiwu dara doomu aadama bi nga jéemal lu baax jéem googu may ko dara waaye nag danga ci amee tagg wu rafet ak ak tiyaaba ak ngërmaane yàlla rek laa wax de doomu aadama bi nga bëggal lu baax jéem ko dimbale ko benn yàlla dogaloon ko ci moom bu ko yàlla dogaloon ci moom nag dana ko am waaw su ko defee nag mu jaare sa loxo ñu tagg ci gërëm na ci yàlla bind la ci tiyaaba fekk doo ci dara rek laa wax de bu fekkee ne yàlla dogalul ko dana ko am gaa mais da nga ci am du ko am ndax yàlla dogalul ko waaye da nga ci am tagg wu rafet ak ak tiyaaba rek laa wax de safaan bi loolu boo ko yéenee lu ñaaw te yàlla dogal la ko ci moom dana ko jot waaye saa su nekk rek danañ la ci ngañi danañ la ci xas nga am ci bakkaar sa digganteeg sa borom bu fekkee ne yàlla dogalul ko dana jéem lu bon ba sonn te du ko am su ko defee nga am ci tagg wu ñaaw rek laa wax de yàlla bind la ci bakkaar loolu waral nit ki dafa war a rafetal jëmee ci mbokki doomu aadama mi rawatina ñi nga xam ne seen mbokki deret lañ yéene leen lu baax de yonent bi sallallahu alayhi wa ñëpp buñ dajee woon pour jox loo xam ne yàlla dogalul ko ci yaw doo ko am ba mukk waaye ñëpp buñ dajee woon pour fànqal la lor woo xam ne yàlla na moon na ko ci yow mënuñ ci dara ndax big bi doon yàlla bindee yëkkati na ko téere yee fenn na inna laa naka yàlla kaanu mosul moo dañ raqiiban daal ji fuglu aleykum ci yéen xaafisan daal ji wattu li amaalekum ñeen seen i jëf seen i jëf yëpp yàlla xam na ko te dana leen ko fay bis rek laa wax de in uridu al-islaam mastata'tu wa tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh